Senevision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. Senevision.com kumpa tàggoon ak yéen. taala wa barakaatoo jëmale ci waa Kaffrine yëpp. Mm-hmm. jamono ji képp kuy teewlu rajo Kaffrine FM. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant. Mm-hmm. di ziyaara di leen di leen masawu waaye di leen jaale jaamu yàlla ni ñun alhaji Ahmed Saloum Boy Ahmed Saloum Boy xëy na ñu am xibaar ne suñu borom subhaanahu wa taala li mu ñu dig kenn ku ne ci ñun na mu ko diggee woon ñi ñu jiitu ñi ñu jiitu woon ci àdduna ñi mu ñu ko diggee ñun noonu la ko diggee ñii ñëw gannaaw ñun ala kulli al mhm. kullu nafsin zaa'iqatul mawti mhm. waaye suñ borom fàggul ñu toog feex bu toll nii ñi gëm nangu wóolu ay dogalam Mhm. ay waxam ak ay digleem mhm. ba tax na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy jiitu suñu kàddu mhm. la cay tegu mooy alhamdulillahi rabbil alamin sant ko dég ci li mu ñu dig di ñu dikkal ci ni mu ko bëggee mu may ñu xaal ak ngëm gu toll nii ñi nangu ko mhm. ñi am ñi am ne yaqin ne suñu nangu loolu du ñàkk nangu ñàkk pexe nangu gëm wóolu la euh, Ahmed Saloum Boye nag li ko dikkal wax naa leen ne dogalu suñu borom la digle digle suñu borom la hmm. waaye dama bëggoon ngeen may ma ma wax ni ma ko xamee hmm. fi ma ko xamee hmm. ak lenn ci li ma xam ci moom li jàkk mooy xam naa ne jullit la gis naa ko muy julli xam naa ne turam ku ko dëkk Ahmed xam ne wala nga njort wala nga yaakaar ne jullit la waxuma la mbokk bi nekk ndukkumaan képp ku sant ka nekk ndukkumaan nekk Saalum wala nga nekk Sénégal waxuma laa ku sant booy mbokkam nga te bëri ci ñoom ñoo xam ne nii ay kaan foore la ay xaafis lañu ay walli lañu ay muallim lañu am ah, na sax lu bëri maa ngi ko xamee Kaolack gannaaw bu mu nekkee ci ndawi parti soli ci jamonoy Senghor ba jiite bokkoon ci MNJPS MJPS noonu la bés gannaaw digganteem ak Abdou Diouf melee nam bi Abdou Diouf wutoo Senghor mm-hmm. moom Ahmed Saloum Boye mu taxaw di jàppale Abdou Diouf ci koo xam ne moom Ahmed Saloum Boye gannaaw bi mu nekkee ci mouvement MJPS mm-hmm. amoon na ay xarit ay wóolare ay njaatige ci dëkk yu fasan ci kaw ci Sénégal mm-hmm. bi Abdou Diouf yore réew mi bëgg am baat ci partie bi ak doole ci réew mi Ahmed Saloum Boye wagas ay euh, loxoy mbubam ak i tànkam sos kuréel gu ñuy wax comité de soutien à l'action du président Abdou Diouf muy COSAPAD. Eh, ma xam ci moom jullite ndax gis na ko mu julli ay yoon yoon fekk nañu ay sàppe gis naa ko mu jàpp te da daan ñëw sama kër sama kër bàyyi ak sama kër bopp ni ko samay soxna mii ne tey nit ko élégant la woon ku charmant su daan sama jabar day sama jabar day ree rek ndax daf koy apprécier daf ko daan nga ah, yow koddu yaay sangub Ablaay ndax moom boo ne booy booy mën a nekk pël boo ne kaa kaa mën a nekk pël waaye daal sénégalais bu mag la woon bu ràññeeku amiin am na Saloum yàlla ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla àtte ci yërmandeem ñun ñëpp <laughs> nañu ko ñaanal nañu ko ñaanal ndax yàlla moo moo ñu dig nañu ñaan leen wa ma leen <laughs> li ñu seq ak moom du na li ñu mën a seede ci moom bëri na. Mm-hmm. fekk naa ko muy xulóog ay nit pour forage su Malem mm-hmm. naa ko muy ñaax ak a soññi. Mm-hmm. kilifa yi yore réew mi. keroog moom Ousmane Tanor Dieng la ci doon waxtaanal. pour lu jëm ci yoonu Ndioum Gént. yoonu Ndiobène Samba Lama. yoon yoo xam day jóge ko ci Malem Hodar jëm ci dëkk yu mag yi wër Malem Hodar yëpp mm-hmm. te booba la mu ci bëggoon mm-hmm. mooy lu suqali gox bi mm-hmm. gannaaw boo xamee ne dañ na leen wax ne leen département Malem département mbay la waaye département sàmm la jamono ji mu génn àdduna nag lu mos ta dëñ ci àdduna dafa fekk tar mbiicoo ak mballoo mhm. fuftu dëkk wante sosolante mhm. xaawi wante sutura mhm. ndax man bañu ma ñu xeex bañu ma ñu xuloo bañu ma sax ñu xëccoo waaye li bon ci réew mooy weerante ndax bu nit ay nit weerante ku sàgganu rek ñëpp sàgganu nañ waaw fu góor xawee suturaam mais ko ndeyam juree Hmm. wala jigéen def ko kenn ku ko ci def boo dee góor. Hmm. lor nga tooñ ko mboolem góor ak mboolem jigéen boo dee jigéen lor nga tooñ nga mboolem góor wala jigéen. dëgg la alxuraan mooy wax yàlla. Hmm. araf yi ka suñ borom tëddee tëggee wax ko. nit ñu bëree te wuute masque yi bëree ko te wuute. su alxuraan melee noonu naam li mu nekk wax yàlla la waaye. Mhm. su arab yi nangu leen tewuloon mu ñu leen tuujoon dimbaleen tewuloon duñ mel ni mel duñ ñoŋe ni mu ñoŋee. dëgg la. may wax ne kon nit ñi. Mhm. nañuy nangulante nañuy muñalante. Mhm. xaw ma ndax maa nga ci wax dëgg waaye nañuy nanguwante nañuy muñalante. nañuy yéenante kenn ku ne yiw. su boobaa li ñu fekk tamonante ko. dana ñoŋ ba yombal ñi ñuy wutoo la bu ñëwee seen taxawaay ak seen warugar ak seen def def hmm. waaye yii ma gis ci jamono tey ah man de su ma ko daan def ba ma jaan yëngatu yi yàlla dimbali ni ma hmm. te fi mu doon nii yeewu naa ci yeewu boo xam ne nii hmm. pour ma xëy di yëy yàpp ci yu mel noonu ah su dul wax comme wax ji wax ak yéen daal du ko suut du ko wuuteeg moom. du ko sori loolu kon nag. Mhm. ma baamtuwaat ko maa ngi masawu. Mhm. soppe yi xame yi xarit yi bokk yi. Mhm. Ahmed Saloum Boy. di ko sàkkul di ko sàkkal di ko ñaanlul. di ko ñaanal yàlla njéggal ko yàlla yërëm ko. loolu daal laa bëggoon a ci turu parti socialiste en tant que porte-parole ci turu assemblée nationale. en tant que député euh, ci turu conseil municipal Kaffrine. loolu laa bëggoon a wax. jërëjëf. Senevision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. Senevision.com kumpa tàggoo na ak yéen.